dina am ñu mu dee dee dee mille canadiens yu la topp mille canadiens yi la topp wallahi la azim parce que la conscience citoyenne dafa développé wu fii doomu aadama yi dañoo yeewu fii yeewu benn xeet yeewu boo xam ne du doo naxee di n'importe quoi doo leen naxee ay tali yii parce que dañ ko màggaalee doo leen naxee ay tali tali yii doo leen naxee doo leen naxee ay tali <laughs> doo leen naxee ay ay poto lampe poto lampe yaa ngi doo leen naxee ay caméra doo leen naxee ay caméra <laughs> donc ñii développement yi ñu am donc am na loo xam ne doo leen ko naxee tey Guy Marius Sagna lu mu génn noonu di dox dox ba ñaari journaliste ñett journaliste ko topp ñeneen ñi naan ay maa ji ñi ngi sa ginnaaw maa lay yabal maa lay yónnee gone gi maa lay yóbbante bu doon fii la tey jii Guy Marius Sagna génn buntu këram di dox balaa yegg assemblée nationale dina am dix mille canadiens yu ko topp wala dix mille américains yu topp ci am di ko pulvériser di ko jàppale donc il faut sénégalais yi am ben fibre patriotique il faut ñu bëgg seen réew il faut seen réew jaral leen lu ne réew daf la wara jaral dundu daf la wara jaral dee bu weesoo lolu xaaral ma profito dem parce que weer voilà xoolal respect ñëpp a ngi taxaw ñëpp a ngi taxaw donc voilà <laughs> dëkk yi li mooy organisation xol ndeysaan amul pimp mais lan moo tax war ngeen demandé wu loolu lan moo tax ñi ak oto yi ni ñu paree lépp ñoo leen ëpp oto foofu ndax oto yi ngeen di jël yu nekk Sénégal yëpp fii lay jógee ak ay Amérique ak yooyu amu leen sax ay oto oto yu fi jógee ay Canada lay jógee ñu indi ko foofu ak ay ak ay France ak Australie amu leen ni oto ñi ñoo leen ëppi oto ëpp leen i nit xool leen organisation bi police newu fi kenn nekku fi kenn ay feu ñooy wax ak ñoom ay feu ay feu bii tak tak tak tak tak ñii jàll ñii xooleen ñii signalé leen kenn amul fitu jàll fii te policier new fi sénégalais bi nag day yéenu ana policier bi si new fi xaaral ma dem sama yoon man xaaral ma nang kenn peep waaye yow la ngay mën a def lii waaye yow ñoo traversé waaye fecce mën a nopp yow yow fecce waaye yow mer duul nanga voilà gis ngeen c'est triste nag mais bu weesoo loolu dañ leen di xamal ni euh, élimination Ousmane Sonko bi nga xam ni nguur gi jogte nañ ko boobu ba léegi fii nag amul ay saawu mbedd nag <laughs> amul ay saawu mbedd am na tamit ay ay douche yu nekk ci mbedd mi ay douche yu set sax ay douche yu nekk ci mbedd mi am na fi boo sawee génn douche bi day tëju raxasaat douche bi yëpp douche bi day tëju raxas boppam raxas boppam sotti ndox mi sotti omo bi raxas boppam ba mu set def vert te loolu du dara fi maanaam am na ay duusi mbedd yoo xam ne bokk ma leen duusi marché Sénégal yi de yu xasaw yu salte yooyu nga xam ni gars dañuy day ba day fooy toog wala fooy fooy teg say tànk dañuy day ba day ci kaw day partout partout <laughs> voilà saw ba saw fooy taxaw da ngay ubbi duusu marché Sénégal yi doo ñimee dugg parce que dañuy puub ba puub ci bunt bi puub ba raata la ko ci bunt bi saw ba saw ci bunt bi <laughs> donc moo tax douze marché yëpp ñu éliminer ko <laughs> moom ñu nit dañoo romb doon nit dañoo romb doon nit yàlla dafa créer nit ñoom ñu nit nitaatu nit ñu indi nitaatu nit nitaatu nit <laughs> donc voilà euh, voilà donc maintenant fii nag dafa am douche yoo xam ni douche yoo xam ni kenn du leen raxas ñoom ñooy raxas seen bopp da ngay bës dafa am verte ak rouge boo bësee verte bi mu def teint ubbeeku nga dugg bus mu teju bu tejo bo nekk ci biti da ngay gis ne amna na ko fi ne lutax nak parce que day rouge bu kooku genné kenen du meuna dugg dedet douce bi mom nan la dedet bu dugg bu dugg douce bi mo lay wax lolu bu dugg ne la xaaral ma raxas li fi sa waji def feeb mu pou bi bu dafa pou mu saw yi bu dafa saw raxas fofu yeb ba mu set après def ko verne la aca mu nga dugg douce yi wax ak nit yi douce fi douce yi wax ak nit yi <laughs> nit do ak nit amul ku fa tok nan ay eh, gardien bu fa tok nan eh <laughs> loolu loo fi def pou pou fukki dërëm saw juróomi dërëm der amul loolu 12 bi mooy te gratuit la gratuit donc <laughs> voilà loolu lepp vraiment wala xalé yi épanouissement ci école yi sont là ils s'épanouissent les jeunes qui s'épanouissent bon damay romb gis nga école la li école la ils s'épanouissent ils sont bien amul ay sàcc balu booy yi gis nga fi ni ne nii bu doon Sénégal la xol boy li jënteetuñ bal bi mais je kay dello parce que tout simplement fille, amul sàcc bal hein ah. fi amul sàcc bal bal yi ça coûte rien du tout ok allez jouez <laughs> je suis fort hein, je suis gaucher ah de rien de rien c'est gentil vas-y je suis un joueur international voilà xale Agni, ngi <laughs> ils sont à l'aise ils s'épanouissent ils s'épanouissent non pas ñun sañu doom yi sañu problème yu ñu am suñu problème lu ñu am lañ leen di sëf xale yi seen bopp yi dañoo toj suñu doom yi seen bopp yi dañoo toj seen yaay yi feebar yi ñu am lañ leen di gàll seen papa yi feebar yi ñu am ci mbedd yi lañ leen di gàll calcul mental bi dafay feeñ ci doomu ci suñu doom yi dañu am problème parce que dañuy yow duñu lekk duñu naan seen papa takk seen yaay amul fukki dërëm c'est inadmissible barki dem ma ngi yor ben boy mo envoyer ben message xomako xamanu mako ci adama kawa indil ma ay lewul aduna tukki sama jabar a ngi nii hôpital dafa ne sama dom nangam mané mais attends yow ba ngay tak sa jabar te yoro lo jëndee ordonnance ba nga koy ma sha allah yalla nangu ko te yoro ordonnance ba nga dem ba mu ne putub doom nga jare yel ordonnance ya, dugg ci internet bi di wër ku lay dimbalé ñu jëndal la ordonnance sama waji <laughs> lool lu ko fi jar lan moko fi jar est-ce que yalla mo la ko tek est-ce que mo ne amo loy tak doomu jambour di tak diko teudé ko allah loolu dagan na di tak diko teudé ba mu ne putub doom nga dajale ab ordonnance yépp sa di wër di wër ci internet bi ku la ko jëndal ah te man ñamuma ñamanuma xamuma na ñam ñam Eh, nga am sab doom moo waral la ko jëndalal ordonnance ah <laughs> damaa rus waa ji rek mais ko woon wax sama waay ah man kat ba ngay wullee ko ndullee ko tulli nekkuma fa di dégguma dégguma ay xawma lu muy saf nga nekk ca nekk ca nekk ca ba yàlla may la ca leer ah <laughs> engagé wul ah <laughs> man kat xawma defuma ca dara dégguma uy ay war a jënd ordonnance eh? xale boobu tam ñëw fi nga tooñ ko indi ko fi ci indi caaxaan amoo dara yoroo dara yoroo lekk loo nan indi fi doomu jàmbur indi fi liir indi fi nit nii nii nii nii ne nag léegi gémmiñ ko yàlla xar def ca tooñ nga doomu jàmbur tooñ nga yaay ja tooñ nga doomu jàmbur mooy xale bi nga fa indi ci àdduna boobu ah et cetera et cetera bàyyi leen caaxaan bàyyi leen dëkk bi ñu naan laay wutil jabar ak takkil jëkkër amu leen amu leen fukki dërëm di dugg ci ay mbir yoo ngeen amut moo tax sëy yi mënu yàgg da ngeen di nekk di doxaan di fen gel yi di leen fen fekk yoru leen ñàddërëm moo tax gel bu ci sëy deux mois trois mois mu génn boo ko ne ça va naka sa chéri sa naka sa jëkkër mu ne la fase naa ko ba yàgg tas nañ tas nañ ah, tas nañ lañ mën a def dañuy dem abbi ji di doxaan yi yoruñu ñàddërëm lu suukar café yoruñu ko liggéeyuñu xëyuñu gontuñu seen salaire matu cinquante mille wala bu ko wala quatre vingt mille wala quatre vingt dix mille loolu dañ cee mën a yor doomu jàmbur. Hmm? parce que yaa ngi génn ci koñ bi naan la wutil jabar wutil jabar nga dem takk xale boo xam ne yoroo fukki dërëm yoroo ko loo lekk yoroo ko nga dem jël doomu jàmbur ñëw téye pour koñ bi ne la waa léegi lu ñu la doon sonnalee takkil jabar dootuñu la ko sonnalee parce que yaa ngi yor doomu jàmbur doomu jàmbur goo xam ne da ngay yeewu suba ba hmm? jox cent mille foofu voilà jàpp ci waay ba sa waay boo yoru gëmal yàlla gëmal yàlla doomu jàmbur dañ doo ko yoree ci kër du lekk ak naan kese du affaire du xar ak kay bëy ki mbaam xuux du xar du xar du xar bu ñu wutal ngooñ xaaral ma wutal ko ngooñ jox ko mu lekk te naan xaaral ma nangam nangam boo amul muñal amul muñal moo tax benn say yàggatul senegal koo gis ku la ne salaamaaleykum tey takk takk nañ ma dans 3 mois 4 mois ba 5 mois may leen 5 mois ñu génnaat <laughs> ça va <laughs> commencé bu bëri waat ci internet bi bu ñu bëri ci internet bi rek bëri tànk rek <laughs> am ña ngay wëri waat keneen ña ngay taxawaalu ñu ngay wëri waat ñëw tok nak moo tax Sénégal jigéen ci laal mu jooy koo ci <laughs> salaamaaleykum mu jooy parce que mi ngi ñëw triste <laughs> histoire ku ñoom ñëpp yor ay histoire yu triste moo tax chaque semaine am kenn ku ñëw jooy paccal leen paccali bët oo génne rongañ <laughs> ñi ñoom ñëpp triste kii naa mu muñal maa la gën a garaawle histoire muñal maa la gën a garaawle ñoom ñëpp yor ay histoire tëñëx tëñëx yi yàkkamti gëmuñu yàlla ku nekk bëgg sëy par force ñuy agressé góor yi kaay takk ma par force kaay takk ma kaay takk ma waaye <laughs> sa waay bon nit bi boo ko toppee na ko kaay takk ma kay sa waay <laughs> ma doo ne kaay fase ma dalay fase dalay fase parce que yaa topp ne ko kaay takk ma takk doxaana <laughs> kaay waxtaan ak kaay waxtaan ak de sam de nee na bëgg xam sama yaay nee na xanaa loolu mooy gaawal tuuti ñëw takk ma mu takk la yaa yow kaay takk ma bi yow yaa ko bu ñëwee ñam kumpa ga dem yoonam bu ñamee kumpa bu ko wóoree ni gi bu takkee la koy ñam mu takk ñam <laughs> bay kumpa la kumpa gi seey na amatul kumpa loolu mooy problème bi loolu mooy problème moo tax koo gis gel yëpp a ngi li bët émission la ñuy xaar ñoom ñëpp a ay histoire rek ñoom ñëpp histoire te ko ci gis nag moom histoire am waa ji da koo nga nekk magum jëmm muy magum jëmm mu futti tubéyam nga futti sab sab silib ngeen def taatu nen te toog ci lal ba wullante ba seen taa di tàng nga génne naan <laughs> daf ma nax daf maa nax daf ma daf ma digoon takk takku ma daf maa nax <laughs> sa man boo ma diggee takk dinaa di ma wulli te takkoo kon daal kon yow kon gel daal koo ci dig takk rek après yaag moom daal ay waay kon dig takk égal takk daal kon senegal dal bu ma la diggee takk rek moy man mala mom moom c'est gratuit damay dur ba mu neex ma <laughs> rek sa way lumay dox di tak lumay dox di tak budé bu la diggee rek nga commencé nga ko ba set wecc mu futteeku comme niñ ma juré ñuy nekk ci position kama sutra jog ak daanu depp ka dippi ñam yi metti <laughs> lu ma fay defati lan la fay defati lan ragal leen yalla ragal leen yalla bàyyi leen seen ndarpaan yi ngeen di vite fait bàyyi leen futteeku bu gaaw bi bàyyi leen futteeku bu gaaw bi taf taf taf taf nga ne ah, roosal roofal xool lu la jox baax na boo leen dundee seen yi ngeen dund noonu ñun soxlawuñ ngeen ñu koy expliqué soxlawuñ ngeen ñu koy expliqué loolu du viol yaa futteeku mu futteeku ngeen ngi jër nekkat ci suñu yoon naw ci suñu yoon nekk ñun dañu am problème mu Sénégal suñu réew mii dafa tàkk tasaaroo donc ñun ci loolu lañ nekk loolu lañ nekk di lijjanti ñun ñu ci seen patali beut yoy ngeen di ci seen beutu seen joy nafiq yoy ñun talu ñu amuñ seen amuñu seen jot ñun rew mi tak na jamono ji ken lekkatul ken naanatul kenn fajotul ken fajotul ken barki demb demb la dem fi gungé ben euh, ben ben mer bu am cataract ben mer bu am cataract ma gungé ko ñu dem hôpital ñu ngay xol xol beut ne ko waaw docteur bi <laughs> moom nee ñu duñu nit nii duñu nit docteur bi gunge ko ba toog docteur bi dugal kii bi xool ba di tak-tak lii cataracte la tak tak tak tak lii di ko expliquer ba man mi amul cataracte sax ma comprendre bët baa nga nii cataracte baa nga nii gis nga cataracte bi lii dafa day récupérer espace noir bi nekk ci bët bi Sénégal ñëpp a cataracte quatre-vingt-dix-neuf pour cent suñu maire paa yi dañoo cataracte <laughs> xaaral ma expliqué leen rek donc expliqué ko ne ko mun nañ def opération bu dee cataracte ça dépend bu dee cataracte bi doyul waar trop mun nañ la defal ñaari bët yëpp benn bi opéra cataracte nag kenn du ko ay xar di génne comme Sénégal duñ la wax kenn du xar di ko génne cataracte mun nañ ko opérer par laser système boo xam ni day mel ni taab bu nekk ci bët bi ñu toj ko. day day day dem ba nga xam ni day après day day day day day mel dafa vidéo bu vidéo ci ci loolu après dañ ciy def benn lanti lanti professionnel yoo xam ni am na ñaari lanti benn bi mun jorul ngay sol ay ver beneen lanti bi mooy deuxième catégorie bi bu ñu ko defee di nga sol ay verre donc ne ko mun nañ la defal ñaari bët yëpp trois jours nga commencé gis di dem sa yoon mën a tëy yàlla man man sama yaay xam na lañ ko def. sama yaay dafa ñëw hopital fa la ma fekk ñu ànd dem hôpital mu ne bëtam bi day ruux day metti docteur bi xool ko bët bi xam nan la docteur Sénégal ba de barke alxuraan sama bëtu yaay ba la toj toj toj carrément ba sama sama yaay léegi patt bët la yor nii sama yaay patt bët patt bët nii bët bee patt docteur bi neew fa naan day de opéré de da ko da jël poso bënn ko bët ba tuur ba jeex tàkk mu ne ko léegi